naqar am lu ñu metti lool muy démb ba tey vraiment loo xamante ni ginnaaw ay sud mënuñu ko dékku euh, ndax euh, président Macky Sall nag duñu ne kenn ku dul moom ni moom moo ñu teg li ñu naqari ndax moo tànn koo xamante ni vraiment commune bi xamuñu ko te aussi xamuñu lan moo waral mu def choix boobu ba tax mu bàyyi fi ki nga xamante ni mooy le président kii Mayel Thiam ñun ñi nga xamante ni ñi ngi fi woon ànd ak président Mayel Thiam ak responsable yi ak ñi nga xamante ni ñooy Benno Bokk Yaakaar bi mu ñëw tànn ki nga xamante ni moom la tànn ci commune bi muy baaba Fall benn jeune boo xamante ni man daal mënuma sax euh, exprimer li nga xamante ni moo ma naqari ndax commune bi ko wax muy xale muy mag muy ndaw mu ne la xamuñu ko te xamuñu lu waral Macky Sall mi nga xamante ni xamu ko en même temps moom tam mu jël ko désigné ko teg ko ci place président Mayel Thiam jàpp te ñu jàpp ko ñun ñëpp moo di président Macky Sall ñun daf ñu xeeb ndax pour man damay yaakaar ni dafa xeeb ginnaaw raay sud ba tax mu jël ki nga xamante ni moom la tànn mu teg ko fi te leer ko ni kii moom ci daanu la jëm ak moom ñun nag ñu nekk ñun duñu nekk ci ginnaaw di liggéey depuis six mois nekk ci groupement de famille ak benn Bokk Yaakaar bi ñëpp ñi nga xamante ni yaakaar nañ ñu yaakaar président Mayel Thiam ñëw ànd ci suñu ginnaaw ñuy liggéey boobu ba tey corps et âme nekk ay responsable yu mag nag képp koo xamante ni ñu ngi ne bennoo bokk yaakaar la dañ naan ñii ñooy bennoo bokk yaakaar ñooñu ñoo ñëw ànd ak président Mayel Thiam kon nag ñun tey du ñu ñëw toog ñu tegal ñu fi koo xamante ni président Macky Sall danaan ñëw leen topp ci ginnaawam ñuy topp ci ginnaawam xalaatuñu ko dañuy def politique demuñu pour perte dañu dem pour jële fi Ablaye Diop mi nga xamante ni mi ngi fi 19 ah ans mi ngi fi toog kon nag demuñu pour di topp ci ginnaaw koo xam daf ñu leer ni ñun day perte bi kenn xam ko dañuy dem ak suñu ñuy dem ak suñu liste te incha allahu rabbi gëm nañ ni ñu liste bi ñuy jamee dañuy gagné ndax liggéey nañ ndax président Mayel Thiam booba tey toogul gis nga nit soo ko xamul danga naan ko eh li muy def ci commune bi dafa bari tunnel bii nga xamante ni daaw dañu ne woon nit daf cee dee daf ñu jëlal li nga xamante ni mooy euh, pompe bu mag tegal ñu ko ci amul kenn koo xamante ni nee nga ren yoon boobu fett na fépp foo xamante ni gox la ba ci gox ab Diop bee di sotra nga xam da daan fees dell ak ndox président Mayel Thiam dafa jël ay pompam jël jënd ko ci xaalisam dem teg ko fa kenn amatul ndox ba ci yoonu mairie bi ñun ko gis ginnaaw raay xam ne dafa salte mais lu mu mën mi ngi koy def ci groupement de femmes yi mi koy def ci ay programme yu mu am am programme boo xamante ni am programme boo xam ne bu mucc ayib la boo xamante ni ñun ñi nga xam ñoo jundoo ginnaaw raay yaroo fi dañoo gëm ni programme boobu mën na jëmale ginnaaw raay sud kanam ndax nag lu jëmale ginnaaw raay sud kanam moom la ñuy wër kon du ñu dem di ànd ci kenn koo xam ne daf ñuy leer ni daf ñuy daaneel.